billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala mabuusi alhidayati wa rahma naashiri alxaqi wa naasiqi zulma munqizi albashariyati min barafini alwayli walgumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaxa alumma wa tarakaha ala mahajati albaydaa layluha kannahaariha la yazigu anha ila halikun wa ala alihi wa ashaabihi gurri almuhajjalin wa shummi almubajjalin مشاهدي الأوفياء من تلفزتكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen ziar leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm am salaam sutura àddina ak àlaxira yal yàlla yàlla doole nu ko defal nuyu mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te lool nuyu njiitu réew mi ñaan réew mi yal na yàlla doole fi jàmm doole fi barke nuyu boroom kër gi Seydi Alxaaji Youssou Ndour nuyu suñu kilifa yi nekk ci groupe Futurs Médias gépp mi ngi noonu gërëm bu baax a baax Alxaaji Ñang mu baax mi fi bàyyi ko léegi moom itam ñaanal ko yal na yàlla yokk ko dëgëral ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi ngi noonu amante nañu mbégte jàkkaarloog yéen mi ngi noonu émission baa ngoog siira ngoog moom ngeen doon xaar toog ndax seen cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa la barki démb ni la nit pour ko il faut nga xam ko ba noppi nit pour nga bëgg ko il nga xam ko ba noppi looloo waral borom bi subhanahu wa taala yónni yónni ay yonantu pour nit ñi euh, yonantu yi mën a wax kanay borom bi subhanahu wa taala noonee la ñoo dem ba mu yàgg saxaaba yeeg taabiin yeeg axtaab yeeg axwaas yeeg afraad yeeg awtaad yeeg ab yi gaa yàlla yi jàll ñoom itam kenn ku ci ne euh, di xamal nit ñi kanay borom bi subhanahu wa taala waaye itam di xamal nit ñi kanay Seydina Muhammad ca njàngaleem nga kana yonent bi alayhi salaatu salaam ca jikkum ju rafet ja ba tax nga mën ko roy ca mbaaxam nga ba tax nga mën a nekk ci lu baax def lu baax wax lu baax bàyyi mbon bàyyi def lu bon kon mbokk yi yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa la ni la fii ak yaa ngi koy yëg yaa gën tedd ku dul yow fii yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd ku dul yow fii ak yaa ngi koy yëg ci sa biir xol yaa ëpp sécurité ku dul yow yonent boobu nag waxoon naa la ni la réew mënul dox te doxunu doxinu Sayyidina Muhammad jamono mënul dox te doxunu doxinu rasulullahi waaye itam nit mënul jag te jëlul ay jikkoy rasulullahi kon yàlla nañ yàlla dolli bëgg la boppam yàlla dolli ñoo xiir ci boppam moom Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu xol bi saa yu nu xëy rek wax yàlla ni ko moom borom bi nga xam moo bind jàmm ñi moom leen te kenn ku ci nekk sunu boobu xol ki ñu ko gën a jege mooy yàlla kon ñu ngi wax yàlla ñaan ko te ma waxoon ni ñaan leen ma may leen yàlla daal nu ngi lay ñaan saa yu nu xëy rek wax wax ma sax saa nu xëyee waaye minute bu jot seconde bu jot cersa bu jot yàlla daal nu lay ñaan yow borom bi subhanahu wa taala yow mi car asamaani juróom-ñaar mu too daanu tàll suufi juróom-ñaar mu too banku yow bi nga xam ni yaay benn buur euh, yow borom bi subhanahu wa taala yow mi bind jàmm ñi moom leen yàlla daal ngi lay ñaan rek ñun ñii wax la ni la saa yu nu xëyee rek wala minute bu jot rek seconde bu jot cersa bu jot sunu cofeel ci Seydina Muhammad di gën a dolliku yal na yàlla dolli nu ko defal euh, jàll bu baax a baax euh, sëñ Abdou Fatah Mbacke mu baax mu fi bàyyi ko tey la juróom-ñetti fanam yal na ko yàlla yokk yërëm jaal ko soxna astu mbàkke jaal ko euh, mboolem njabootu cheikhil xadim radiallahu anhu yal na yàlla euh, yokk leeram ak mboolem kilifa diine yi a dina ak ñi bu génn àddina léegi nii rek am nañu gaañu ñooñu yal na yàlla yokk leen yërëm euh, ci karam tuuti léegi rek dina am ñuy gaañu léegi ñoom it yal yàlla yërëm leen bu subaa it noonu kazalika ñoom it yal na yàlla yërëm leen àdduna ngoog ca ngay xam ni àdduna baa ngi jeex mbokk yi kon nit war na bàyyi xel li ko fi indi ko mu doon bàyyi xelit ki la fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala waaw nit ñaa ngay dem ñooña dem la leen yóbbu du la fi bax malakul mawti ñëw na déparaat na kër gu mu fëgg na la ma lay wax mooy maa ngay ñëw de ma malakul mawti ah mbokk yi molokul mawti moomu mooy raafal kër yi malakul mawti moomu mooy wéetal gox yi malakul mawti moomu mooy wéetal kër yi moom mulukul muuti mooy xool ñaari xarit yu ànd mu dégagé kenn ki mulukul muuti moom moo seet si woon rasulullah gi mulukul muuti moo seet si woon si naa Bakar yóbbu ko moo seeti Omar Ousmane Alioune yóbbu leen ku fi bàyyiwul si Seydina Muhammad nag la njëkk rasulullah moo fi jëlee aadama Adama alayhi salaatu wasalaam moom mulukul muuti yuñ ci yàlla Suleymaan ak nguur ga demoon ba yilif ngelaw li mu taxul mu rëkk yi mulukul muuti Daawda Idrissa ka ko fa jëlee mooy mulukul muuti malaaka booba nag. moom la yàlla dénk mu yor ruux yi ci loxoom la ko yàlla teg dee yàlla nee na ko nag ñaar ngay def ma dégradé la mooy nga rey ko ërëm jotul ak nga rey ko ërëm passé bul ko yéexee te ko gaawee bu ma nit tooñ di ma def lu bon ba nga rey ko te ërëm jotul waaw waaye bu ma nit jaamu ba nga bëgg ko rey ko te ërëm jotul laa yastaqiruuna saatan wala yastaqdimuuna midi pile midi pile rek waaw ah, midi pile midi pile kon malakul mawti moomu saa yu ñëw nañu fekk ñu nekk ci lu neex yàlla mbokk yi nañu gaaw tuub xam ne tuub dañu koy gaawee bala ngaa xam ni bëgg Seydina Muhammad bala ngaa xam ni topp sunna sa rasulullah ay wóor dal xel nga ñu rof la biir bàmmeel waaw waaw bu biir bàmmeel di nga xam ni bëgg Seydina Muhammad a wóor di nga xam ni topp sunna sa rasulullah yi moo wóor Mustafa daan na wax ni man ahya sunnati faqad habani ku dundal sama sunna man rasulillahi kookoo ma bëgg te ku ma bëgg nag maak moom mbagg ak mbagg ba biir aljanna abu jahlin weddi woon na loolu ne ko bëgguma la saay saa yu màkka lankoon nañu ne ko lii ngay wax say waxi boppoo say waxi bopp la yow muhammad ibnu abdullahi waaye teewul rek ci njàmbaar ga teewul ca fitam wa teewul ni ko yàlla bàyyee xel waaye ni mu bàyyee xel borom bi subhanahu wa taala moom yonent bi alayhi salatu wasalaam daan na wax ni afala akuna abdan a aïcha ndax nekkuma jàmbuy delloo jàll jukkal ndax daraan julli ba tànk yi néew yi moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci bàyyi xel li ko fi indi lu mu doon waaye mbokk yi pour nu gën a xam kanay rasulullahi tey jii nag nu àggale fa nu yamoon aljuma paase ndax fa nu yamoon nabi déparé na màkkatal mukaram dëkk ba mu juddoo dëkk ba mu yaroo dëkk ba mu màggee foofa ca makkatal mukaram moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne la njëkk muy ñëw kéemtaan bu ne def na ko màkk am na maamam bu ñu wax Ilias dañu laaj sama samam Seex Sidil Haaji Malik ndax vérifié nga ba xam Maodo li nu bëgg a xam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci kéemtaan yi mu njëkk def màkk bu mu doon mu dama lay wax la njëkk muy juddu kéemaan ya mu def fii ci makkatal mukarram jërëjëf Abdoulaye Lay Maxtaar fii ci kaabatullahi gii ngay séen ñi demagul yàlla ñu dem ñi dem ba nopp yàlla ñu dellu waaw boo fi àggee rek xam ni sa diggante ak yàlla doon doxatu fii am na maamam bu ñuy wax Ilias bokkul ak yun ci yàlla Ilias maamam bii ma lay wax nag mi ngi tudd Ilias ndax Abdoulaye ko jur Abdul Mutalib jur ko Hashim jur ko Abdu Manaf jur ko Xusay jur ko Kilaab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Ghalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanata jur ko Xusaymata jur ko Mudrikata jur ko Ilyas jur ko Ilyas mi laa lay wax di fukki lu maami rasulullahi ak juróom-ñaar Ilyas day tawaaf Kaaba ga boobu njool màkk ñëwagul te kon nga xam Kaaba gi kon yàgg na fi. kaaba gi yàgg na fi wax nañu aadamaa ko fondement ibrahima ko tabax ismaila doomam ja jàppale ko ca tabax ba moom kaabatullahi ji keroog yun cala ilias di wër kaaba gi di wër kaaba gi ilias ba muy départ di la bayka ñëw ca kaaba ga romb ña toog ca boori kaaba ga ma ngay la bayka wu naan la bayka allahuma la bayka la bayka la sharika laka la bayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka waaw gaa yi nag lu ñu bëree bëri laka wal mulku la ñëpp ñu miin waaw waaye innal hamda gis nga inna innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka ñu dégg leerug rasulullah gi ci diggal Ilias di la béykat wu ñu laaj seen Seydi El Hadji Malick mu ni kaay ma wax la kéemtaanam la njëkk muy nu ñu ne ko Maodo mu ni wa fii sulbin li Iliasin yulabbi wa yasma'uhu al mawaadina bil azimi wa yulabbi wa yulabbi daan na labbay kaw moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa wa fii sulbin waaw gi xarfu atiif la fii sulbin jaar la ak majruur fii xarfu jar la sulbin jar nañ ko fii mandara ngay jaram kasral gu feeñ ci mujj gi kon da nga naan wa yulabbi daan na labbay kaw waaw na labbay kaw moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii sulbin ci ndigal maamam ja li Ilias ñeel maam ji ñuy wax Ilias. waaye wa yasmauhu di ko digg almawaadina grand place ya bil azini ci seen i nopp ña toogoon ci boori Kaaba ga daan waxtaan toog ci boori Kaaba ga dañuy dégg gémmiñu Ilias naan labbayka allahumma labbayka wuyu si naal yow borom bi subhanahu wa taala labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa niamata laka wal mulka la sharika laka gémmiñu Ilias a ngi wax ñu dégg kàddu gi bàyyi koo ci ndigal Ilias mu bi di labbayka wu ndike yoo leerug si gina Muhammad sallallahu alayhi ah gars yi kii koo koy tëkkaleel xamul li xew bu mu yàgg ba sa xel dem ci Adama puusal Moustapha du moromam koy Ibrahima mi tabax Kaaba gi ottul Moustapha du moromam koy may xalaatal incha allah Souleymane mi mu léegi yilif jinne yi ngelaw li yor nguur gu kenn musul am te kenn dootu am sa ci moom nga koy tëkkaleeg Moustapha nabi du moromam incha allah mi xar géej gi fukki mbedd ak ñaar romb na ñëw lab. ah moom la sa xel dem ba nga yaakaar ni mu moom ngay tëkkaleeg rasulullaay avancé na bi di moroomam ku sa xel dem yonent Yàlla Iisaa barki démb mu def na déclaration wax na ba bani Israayil ni leen am na kuy bëgg a ñëw Ahmed lay tudd ngeen ko gëm kooku lu bi lu yàlla binde mooma mbaa yëg ngeen ne yonent bu bëgg a saf xorom dangay ngay tudd waa ji te yonent bu ne am na sànni tàccu ñaan goo xam ne boo ko yaane yàlla nangu ko bi nga toll ci circonstance da ngaa ñaan yàlla da ñaan ñaan googa no tolloon na ci alak xeetam ibrahima toll na ci alak xeetam ñaan nga mboolem yonent yi ku ci ne toll nga ci problème toll ci circonstance sa xeet sonal la sa xeet lëjël la nga ñaan ñaan nga ne yàlla alak leen ba mu des rasulullahi li kulli nabiyin daawatul mustajaaba sava nee na yonent bu ne am na ñaan gu ñu yàlla nangu ñaan ngoo xam ni ah ñaan ngoo xam ni boo ko waxee loo ca wax yàlla def ko waaye man day rasulullahi ndëxëñ naa sama ñaan ñu ni ko pour lan mu ne li ummati sama ñaan man rasulullahi keroog bi mu demee Taayif ñu koy yuuxoo ko sànni xeer Zeyd ibnu Haarisa ngi fomp deret ja Mustafa ngi naan ko Zeyd fompal sama deret suuf attanu ko keroog la Zeyd di fomp deret ja ñu koy yuuxoo di ko sànni xeer naan ko yàlla yónni wu la sonal nganu bu la yàlla bu doon yàlla bu doon yónni keneen la yónni mais yow bàyyi ko na Makka ñëw na Taayif am na fa weer keroog la Jibril ñëw ci moom ne ko yàlla nee na adduna bii ñaari montagne ko siq ba mu dum ni xam nga lu yàlla ne nga joxe ndigal adduna bi am fi mbokk yi xam nga lu mu ko wax daf ne ko Jibril ñii xamandu ma mënu ma xamandu ma yuuxu mënu ma xamandu ma sànni xeer jibril baal naa leen am la ñuy fàqi ci seen daa daañu ma bëgg man rasulillahi daañu gëm borom bi subhanahu wa taala xamanu ma samaam dama samaam samaam ne yalas ne cas waajee baax baax law la nabiyu rasulullahi laxtulimu bi laxsha bayni ni waaye walakin na nag ci grammaire arab ñi jàng nax ëhlu nu xaat yaa ngi may dégg laakin mooy lil istidrak mooy diw dafa baax diw dafa baax diw waaye ngay xool leen lam ciy teg diw dafa bon diw dafa bon waaye diw diw diw diw nangam diw nangam diw nangam diw la ko dal diw la ko dal diw lañ ko def diw lañ ko def waaye waaye suñu waa ji waaye ya nag la ma ci teg mooy mën na bil karami dafa tedd dafa baax moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw njool màkka ni sama sànni tàccu aw du sànni tàccu ndax lu mu wax yàlla def ko yàlla nee na ko loo wax maa ko wax loo waxul waxuma ko bokkook yonent yi waaw waaw bokkoog ñoom lam yusaawuka fii ulaaka waxat xaala sanan min ka duunahum wa sanaaw la bu sayri wax ne ko lam yusaawuka du ñu tolloog yow de fii ulaaka ci sa kawe yow rasulullah waxat xaalan te mbir moom diggal na sanan leer min ko tukkee ci yow wasanaa aw ak yëkkatiku duna mu si leen kon yow bokkook ñoom ndax kenn ku ci nekk ci ñoom misaal nañu seen xeet ngir sa dikk yow rasulillahi gaa yey ñàkk xam-xam lu rek bañ a bañ a vérifier waaye xam nañ affaire bi lu mu doon xam nañ it bi ki mu doon ku mu doon muy Seydina Muhammad bàyyi Fatima ak Umu Kulsum Roqeeg Zeynabu bàyyi Abdullahi Ibrahima Xaasim soppay Seydil Xaaji Malik yaakaari borom Touba maami Cheikh na Cheikh Saad bu Mouhamadou Rasulullahi maami Serigne Abdoulaye Thiawlaay Mouhamadou Rasulullahi nabi nabi nabi nabi bu Seyri dafa wax ni ko innama mathalu sifatika linnaasi kama mathalu nujumul maa'u innama xamal ni mathalu misaal nañu sifaatika sa melo li naa sa nit ñi misaal nañu leen ko misaal nañu leen ko dafa dafa buur bu ñuy wax tubbaa tubbaa yàlla ko mayoon doole Touba bari soldaar Touba di sanc ay réew bu demee benn dëkk sanc fa jàll beneen réew sanc ko waaye Touba ànd ak ay soldaaram waaye ànd ak it ak i gisaane katam yu koy seetal Touba bi mu ñëwee ba na wara ña koy seetal ni ko mbaa yëg nga ni yonent mu jóg jamono ki tax yàlla bind lépp te muy Seydina Muhammad fii lay mujjee fii la koy de fii lay dekki mu jàmm yi Touba ne ah! ñu ne ko waaw waaw fekk Touba dafa ñëwoon Medina pour romb de beneen réew Touba ne lu ngeen wax ñu ni ko yonent mu jóg jamono yonent mu jóg jamono la lay wax mbaa yëg ngi ni fii lay fii lay mujjee. màkk lay juddoo yaroo màkka waaye fii lay mujjee ca madinatul munawwara waaye fii lay deewee fii lañ koy suulee fii lay dekkeera mu jàmm ñi waaye Abdoulaye indil indi mi ma borom bareeru or ba sallallahu alayhi wa sallam oh soo julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon soo julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon soo julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon te ku yàlla julli ci yow junni yoon sa yàpp yaram araam na safara waaye gaa yi nañu profité di julli ci Seydina Muhammad waay problème yi am da koy dindi booy julli booy bari loo julli ci moom yàlla dafay dafay raxas sa xol da koy laabal booy bari loo julli ci moom mbon dootul ne ci yow dootoo wax lu bon xas gor dootoo jëw dootoo wax lu dul dëgg booy julli ci moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa xol dafay am leer booy julli ci moom sa kanam day belli waaye yow mer di mer te kenn defu la dara di mer nekk di mer kenn dóoru la kenn xasu la kenn waxu la lu bon di mer da nga am problème mu xol waaye boo julli ci rasulullahi yàlla dafay laabal sa xol mbaa yëg ni di julli ci moom da ngay am sécurité mi ngi nii borom bari roor baa ngoog Alassane ak seeni jërëjëf laay Maxtaar ñi fa demagul yàlla nañ dem téyel ma ko fii fii la Tuubaa ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñi mu lool xoolal ko nga mën a dégg ñu li si xaaral ko ne ko Tuubaa buur la woon bu bari doole ne ko mbaa yëg nga ni yonentu mu jóg jamono màkk lay juddoo makk lay yaroo fa lay waaye fii lay mujjee moom yonentu boobu ne mbaa yëg nga ni fii lay génne àddina fii la ñu koy suuwul waaye fii lay dekkee moom Seydina Muhammad Tuubaa mooma diggante bi ni ko waxee loolu ak bi Seydina Muhammad bi ko yàlla yónnee am na junni at Tuubaa bind lettre jox ko njabootam ne lettre bii nag maa ngi leen di dénk ngeen koy donnante bu fekkee waa ji ñëw na ci sama ci sama jamono naa ko topp yow sama doom yow laay waxal de bu fekkee ñëw na ci sa jamono lettre bii na nga ko teg ci loxoom lettre bii boo fii bàyyi koo kii topp ci yow war laa wuutu na nga ko jox lettre ba kooku war laa wuutu war koo wuutu nañ ko jox lettre ba kooku war koo wuutu nañ ko jox lettre ba ba waaj a ñëw mbokk yi lettre ba bu tubaax bind ak ba ko njool maa kay jot lettre ba am na junni at tubaax toog na ma ngay xalaat rasulullah gi mu ko xoolal ngir ni lan ñu ne ko xaatimi nabiina sayyidil mursalina habibu rabbul alamina hujjatullahi ala alxalqi ajmain ki nga xam ni ëllëg mooy dal jaam ñi ki nga xam ni ëllëg mooy wax ñëpp toog mooy wax ana awalu nas xurujan isa buisu Moustapha ne waaw maay njëkk a jug ne bërët mantom lay sol njàpp la mu deewee moom lay dekkaale bàyyi ko loolu du ko sax yeesal ra mu jàmm ñi yëngal bopp ba ruusitu njàpp dal ci bopp jàmm ñi nga xam ne sa ngor sa ngor nag àlaxira dekki na yàlla nga mer meram nga ña tooñoon borom bi subhanahu wa taala bu leen ko def def nañu ko bu leen ko laal laal nañu ko bu leen ko xool xool nañu ko bu leen ko wax wax nañu ko li nu yàlla diggoon ñu ci dara dara dara dara dara dara waaye njool makka bu jugee ñun dañu naan nafsi wuy fu nu jëm tey sa waa ji naan ummati ana sama xeet wi waxul ana Fatima. waxul ana um kulsum ana roqee ana faat ana zeynab ana abdoulaye xaasim ana ibrahima ana sama soxna yi waxul loolu ana sama baay sama yaay li muy wax mooy ummati sama xeet ñun ñii lay waxal ñun lay jëkkee rek mu jàlbi sallallahu alayhi wa sallam Tuubaa ñu ni ko yonentu mu jug jamono fii lañ koy denc Tuubaa jooy xolam yëg rasulullahi Touba jooy xalaat Seydina Muhammad mu ne gars yi nu kooku nu muy tudd ñu ne ko mooy kooku Muhammad Rasulullah lay tudd Muhammad lay tudd daa waaye danañ ko way Ahmad daa dañ ko way Taaha dinañ koy way Yaasin yàlla nag bu koy wax Yaasin daf koy neexal ba mu koy wax Yaasin fekk njool màkk sonn na mi ngi ko ko waxee ci 52 ans ba fukki ponkal ak ñaar taxawee ci buntu néeg bi kenn ku ne yor jaasi pour rey rasulullahi njol màkk sonn ca makkatal mukarram keroog la ne ko yaasiin keroog la ko la ko yàlla giñal waatal ko bokk nga ci ñi ma yónni fekk taxul Musaa découragé waaye saay saayu màkkan ko bëgg a rey njool màkk joxe dénkaana ya taxaw dëkk boo juddoo yaroo fa musoo dem beneen réew ñu ni la génn dëkk bii dem beneen réew njool màkk jaaxle na ndax yónni gi ko yàlla yónni jibir na lay képp ne ko asalaamu aleyka ya abal xaasim yàllaa ma yónni yàllaa ngi lay nuyu mbaa yëg nga ni yàllaa ngi lay nuyu sa waa ji rek ka daan dégg rasulullahi keroog la ko yàlla ni yaasiin wal quraan al hakiim innaka la min al mursaliin ala siraatin mustaqiim tanziilul aziizir rahiim li tunzira xawman maa unzira aabaa'uhum fa humul gaafiluuna laqad haqqa al qawlu ala aktharihim fa hum laa yu'minuuna إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقموعون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون fukki ponk la ak ñaar njool Màkka romb leen shayatil wuju shayatil wuju kenn ku ci nekk mu tibb suuf sotti la sotti Iblis war leen ginnaaw keroog la ko yàlla ne Yaasin bu ko yàlla wax Yaasin nag maa ngi koy neexal dafa naan ko le pili boo dee boo mooy ku rafet ku mu doon kii la gën a rafet mooy Rasulullah ku sa xel dem ñu tàlla Yusufa ah moom nga dégg ni moo dàq ci lu yàlla bind Moussa du bàyyi bàyyil xel lool Yuusufa taar téeméer la cent quatre-vingt-dix yi mooy juróom-ñeent fukk yi la yàlla jox rasulullah yi mu des fukk dix a des fukk yi des juróom-ñeent mooy neuf yi la yàlla jël jox yunt yàlla Yuusufa kon Yuusufa nabi du moromam parce que nabi am na juróom-ñeent fukk ci taar Yuusufa juróom-ñeent rek la am mu des benn taar benn bi ci des nag la ñu yàlla séddi la ñun mi moo tax ku ñaaw kala dàq la ñaawal dégg nga waaw bul ci jaaxle ci lenn nag jàppal ni daal yàlla taaram ba jël na ko jox rasulullahi tubbaax ni waa ji dugg na ci sama xol tubbaax dem na dee na doom jël na leetar ba doom ja dee na sëtam jël na ko sët ba dee na sutaatam jël na ko dee na sutaatam jël na leetar ba dee na sutaatam sutaatam jël na ko kooka dee na ñu koy donnante di ko donnante ba muy junni at ñu fekk njool màkk toog yëkkati leetar ba jox mu ni lii li mu doon mu ne ko man maa ngi bokk ci askanu Tuba sama maama Mustafa ne ko waaw leetar bii moo ko fi bàyyi sama maam jooju nag moo sant moo sant moo sant réew mi ñu ne ko waaw na bi comme que ummi yu la woon mënul bind mënul liir njool màkk téye lettre ba jox si na Aliyun karrama la wajha te kat li mu mënul bind gisuñu li mook moo tax saay saay makka li leen jaaxal mooy waa ji gisuñu professeur ba ko jàngal mooy waa ji gisuñu sëriñu daara ba ko jàngal ba noppi mu ñëw jàngal univers bi Sidina Muhammad téye lettre ba jox Aliyun ndax sama sëriñ sëriñ Maodo si fa faajab li ummiyin yuallimu alama sëriñ Maodo mu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh ne faajab yii ay waay kaay leen yéem la ma waay ñu ñëw ñëw toog ñëw ba ci moom ne ko lan moo la yéem lan moo la yéem mu ni fa ajab li ummiyin yéemu naa ci ummi bii nga xam ne mënul liir mënul bind yu àllimu alama ba noppi mu jàngal univers bi jàngal adduna bi waaw ah, waay waay waa yi kii jàngale day fekk nga jàng waaye kii jàngul ba noppi jàngal alam bi adduna bi mu jàngal leen mooy Seydina Muhammad Ali ne ko tubbaa la nga mën a dégg sept septième mois mille neuf cent nangam la ko bindoon boobaak léegi am na junni at def na ca dat ba Moussa ne ko waaw mu ne ko moom ñi ko listixaaral dan ni ko yuritu mujjug jamono fii lay ak fii lay mujjee yonente mu jóg jamono fii la ñu koy suuf fii lay génne àddina yonente mu jóg jamono fii la ñu koy denc fii lay dekkee yaramu jàmm Moussa ne ko dëgg la diggante fii ma taxaw di xutba ak sama néeg bii mi ngi bokk ci jardin aljana yi ma bay na béy tii ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil jannati rasulaay nee na diggante sama néeg bii mooy néeg ba mu denc fa ñu ko denc ak fii mu taxaw di xutba mi ngi bokk ci jardin aljana yi kon ñi demoon Makka ak Médine ñi demoon Médine waat leen ni dem dugg ngeen aljana yéen te deewagu leen waaw waaw kon ñu dem ñu fa demagul yàlla ñu dem sallallahu alayhi wa sallam alin li leer lettre ba tubax du yëg njool Makka jàmm santeeg moom wan ko yëg gi mu ko yëg cofeel gi mu am ci moom ah kay mën naa ne ndax mu tasa yu fuuna yi ñoo wax ni al isqu lil uzni qabla al ayni muxtabaru mu tasa yu fuuna dañu wax ni al isqu lil uzni qabla al ayni muxtabaru mooy nopp dana dégg sopp te bët gisagul. mën ngaa dégg nit sopp ko te te gisoo ko kama xaal mu aliful kitaab euh, waykat arab wax ni euh, laqad sami'na bi awsaafin lakum kamulat fa sarrana ma sami'nahu wa axyaana min qabli ru'yatikum ninna mahabbatukum waaye wal uznu taashiqu qabla al ayni axyaana mooy laqad sami'na bi awsaafin lakum kamulat waaw dégg nañu seen i melo yu mat sëkk fa sarranaa maa sami'naahu ahyaanaa ñu bég ca la ñu dégg ci yéen dund ci ay jamono min xam ne itikum njëkk ñu leen di gis ma naa mahabbatukum ca la ñu amee cofeel ci yéen ndax wal usnu ta'shiqu qabla al-ayni ahyaanaa nopp dana dégg sopp ay jamono te gisagul kon mën naa ne tubbaa ne ko cofeel sama cofeel ci yow maa ngi la koy wax bëgg naa la sopp naa la jox naa la sama njébbal gëm naa ne yàlla yàllaa la yónni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulillah ah mbokk yi tubbaa loola wax na ko junni at njont bi téye na lettre ba jox nañ ko ko ca madinatul munawwara Aliou moo ko liir kon yonentu boobu nag euh, ku ñu la wax ni mooy moo lay garantil ëllëg war ngaa gëm loolu bu ñu la waxee ni ëllëg mooy peleedal jaam ñi war ngaa gëm loolu yàlla nee na ko sama ngëneel sama teraanga xaw ma ko koy miim waaye du yow rasulullahi wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla nee na ko sama ngëneel sama teraanga jox naa la ko ba mu doy sëkk yow Seydina Muhammad waaw wa kaana fadlullahi alayka azima sama ngëneel jox naa la ko sama teraanga jox naa la ko te waxal ak sa gaa yi waxal ak ñoom waxal ak ñoom talatuñ ma man yàlla waxal ak ñoom talatuñ la yow rasulillah gi waxal ak ñoom dañuy leb ay boru julli waxal ak ñoom ñii julleetuñu waxal ak ñoom ñii wooratuñu te nee nañu yow la bëgg waxal ak ñoom ñii ñu ngi nekk ci lu bon di def lu bon te nañ ñëw la bëgg waxal ñoom koo ci waxal ma nga naan muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di jooy te doo julli bëggoo yonent bi waaw ah, yonent bi laa bëgg te doo woor bëggu sayyidina muhammad rasulullahi laa bëgg doo jàng alquranul karim soppoo alquran bëggoo yonent bi amul sa benn doom boo duggul alquranul karim bàyyil xel boo deewee bàyyil xel boo deewee nga ndax nga am ku la ñaanal jël leen seeni doom ngeen jàngal leen alquranul karim ba bis bu ngeen deewee ngeen am ku leen ñaanal sa doom mën naa jàng lépp na jàng tubaab na jàng anglais na jàng chinois na jàng sa japonais na jàng séeréer na jàng lépp waaye ma ni na alquran njëkk ci dënnam boo école tëjee jëlal sa doom na def yóbbu ko daara ja xale doo am jot na mokkal alquran su mënul mokkal alquran na mi na miin alquranul karim ba bis boo fi jugee ñay wàcce kaamil say doom bokk ca ñay téye kaamil ba waaye nga dee amoo ko la ñaaral ñu romb ñu jàng wàcce kaamil ñëw na 30 minutes ne kaamil ba jeex na nga yëg nga ñàkk yëg yaa pertalu sa bopp mbokk yi teraanga bi nu yàlla defal mooy bi nu yàlla boole ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad teraanga bi nu yàlla defal mooy bi nu yàlla boole ñu bokk ci xeetu rasulullah yëg ko waaye yàlla nee na léegi nag ñun doomaa aadama ak jamono bii li ñu soxlaal mooy ëppalante alal gën a rafet la kër néew ju doole ji jaamootuñu yàlla borom alal yi jaamootuñu yàlla talatuñu ngir jaamu borom bi subhanahu wa taala te koo wax mu ne damaa bëgg Seydina Muhammad dama bëgg yonent bi di xastante dama bëgg yonent bi di waxante lu ñaaw dama bëgg yonent bi di sàcc xale yi maa ngi leen dénk wax naa la keroog ngeen bàyyi sàcc bàyyi leen sàcc loo sàcc fii ëllëg nañ la ko yan ëllëg yow mal xiyaam bu fekkee da sàcc oto oto ba dañ la ko yan bu fekkee da ngaa sàcc lalu jàmbur dañ lay yan lal bi bu fekkee xaalis nga sàcc xaalis ba dafay nekk safara ñu teg la ko xaalisu jàmbur bu ñu denc nga ñëw ne ko coppet yóbbu ko yow boo koy lekk sax sa xel waru dal waa kii la romb defu la dara pourquoi nga koy agressé lu tax ngay agressé jàmbur di jël alalam ki yor téléphone am toog ci taxi nga ñëw këf ko dem ak moom téléphone bu jot cinq cent mille nga jaayee ko sant mbaa soixante quinze mille yow wóor na leen tooñ nga bàyyil xel loolu bàyyi leen sàcc bàyyi leen sàcc tey dundeelu lew te bàyyi tiriyan bàyyi leen dóor martu te bàyyi waat lu dul dëgg billaahi attan ngaa jël kaa kaa mille daal di waat waate nga sëriñ si waate nga yuruntu bi billahi wallahi taalaay waat sa façon waat gune te yow sa sa biir yëg nga ne li ngay waat dara amu ci bàyyil xel ni bàmmeel dana am bàyyil xel ñetti fanu bàmmeel bàyyil xel àdduna bi nga xam ne yàggul wax naa la ko ci suba si Abdoulaye Mbacke radiyallahu anhu nee na nit ñi bu ko yéene ñëpp jàmm du tax ñëpp am jàmm waaye yow di nga am jàmm waaye ku yéene ñëpp safaan du tax ñëpp am safaan waaye yow di nga am safaan yow balaa sa a sedd ñu ni diw tëj nañ ko kaso balaa sa xoola sedd ñu ni diw dee na balaa ngaa bég ñu ni diw kat dafa nekk ci problème balaa sa a sedd ñu ni diw kat ña ngi koy coow ña ngi koy mbamb ci dafa am gàcce balaa sa a sedd nga yëg ko nu toroxal allahu akbar ban réew la ñu nekkati bàyyil sa xel li la fi indi lu mu doon bàyyil sa xel ki la fi indi ku mu doon te profité jubag borom bi subhanahu wa taala leer laa balal sa xol jël sa xol bi bëgg yonent bi alayhi salaam xoolal njool màkk ñi ko bañoon ñëpp mujj nañoo dellu ginnaaw moo nga tax jullit ñi perte xare Uhud dikk na jox njool màkk njëbbalam xoolal Hind bintu Utba mi xam Hamza xam na ni waa ji moo gën a baax ñëpp jox na ko njëbbalam wax si mi ko reyloo jox na ko njëbbalam Abu Sufyaan mi nga xam ne dafa bañ a njool màkk jox na ko njëbbalam bari na saxaaba yoo xam ni dañ ko contrôle waaye dem nañ ba mu yàgg xam ni kii kuy ñu jub moo leen gën a jub ñi seel asfal asfiya yi njool màkka la atqal atqiya yi nabi Mustafa la ñi ragal yàlla ki leen gën a ragal yàlla mooy rasulullahi moo gën a sérieux ñëpp Seydina Muhammad kon nañu way ay jikkoom lay maxtaar mi ngi noonu émission baa ngoog siira ngoog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. allahumma tuba alayna tabarakallah Alassane ak Seyni euh, ñu ubbi ligne bi rek euh, dalal nag téléspectateurs yi bëgg Seydina Mohamed Abdoulaye Kara Seydi ca Adayaan soppi Seydina Mohamed boobu lay Serigne Abdoulaye Kara Seydi Seydi ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Adayaan yëpp ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral Alxaaji Ngañ Mbaay maa ngi koy nuyu moom itam euh, nuyu soppi Seydina Mohamed yi nga xam ne ñoo safoo télévision Futurs Médias nuyu leen ñaanal leen nuyu waa bitim réew. Euh, Abdourahad Gueye ca Italie Lecco xam ngeen bisam bi le 16 septembre lay doon incha allahu taala euh, sama jigéen association bu mag boobu la ca Bergamo le 17 lay doon ñoom itam waaye xam nga njabootu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy bu Thierno Saïdou Nourou mu Alhaji Abdoul Aziz Dabakh njabootam gi nga xam ne ñoo nekk Strasbourg ñoom itam seen bis ba le 23 lay doon ca Strasbourg waaye xam nga le 17 ci guddi ñoom Pape Torino ña nga jëm Torino seen bés bu mag lee bu ko kenn kenn wuute Sadbu Samb dana ca teew incha allah taala Abdoul Ahad Gueye ñoom Omoro ñoom ñëpp ñu teew ci bés boobu euh, te kon waa Torino yéen a xaar. yal na yàlla mootali lépp ci daraje Sidina Mohamed bu ñu fa bàyyikoo nag ak dem France incha allahu taala jëm Strasbourg ànd ak Sidi Mouhamadul Moustapha Sy mu Ceerno Seydou mu Alxaaji Abdul Aziz Sy Dabaax loolu le 23 lay doon ca Strasbourg bu ko kenn kenn kenn wuute mbokki mi noonu ñaanati borom bi subhanahu wa taala sunu cofeel ci Sidina Mohamed yal na ko yàlla gën a dolli mi mi ngi noonu liñ baa ubbeeku na maa ngi xaar ñi bëgg Seydina Muhammad ñoom itam gën a wane seen cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan ñi dem Makka yal na yàlla nangu seen aj yàlla defal xajjan mabruur wa sa'yan maskuur ñun ñi fi dese ni di waaj a dem yal na yàlla yóbbu ñu ci jàmm eh, ngeen ñaanal ñu dem ak jàmm fekk fa jàmm ñëw ci jàmm demaat rek namantiku ak suñu waa ji sallallahu alayhi wa sallam eh, dëkk boobu nga xam ni la way ko taara ba waxoon ni ba ñu ko way suufee ñi lu wàññi dara ci ngëneelam bughdul asafili lam yu naqis fadlahu bal zaadahum baynal wara tafdila waaw mu ni buxdul asafili bañu ooyu suufe ñi ñi nga xam ne dañuy suufe am mais am na ko xam bu la bañee lu mu lay wàññi ndax jar na naqarlu buxdul asafili bañu ooyu suufe ñi lam yu naqis fadlahu lam yu naqis du wàññi dara dara fadlahu darajay rasulullahi waaw man li fi nekk kay zaadahum da koy dolli baynal wara ci diggante mbindee fi tafdila ngëneel waaw bis bu ne rek nit ñi di ko gën a bëgg rek kenn mënu ci dara dara dara dara waaw kenn mënu ci dara saa yu ñu xëyee di ko gën a bëgg l'islam bi gën a dolliku waaw xam nga tey boo xoolee Makka di nga xam ne la ko yàlla digoon nag dikk na de waaw inna fataxna laka fatxan mubinan fatxan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min danbik wa ma taaqara wa yutimma nicmatuhu alayka wa yahdiyaka sirata almustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza yàlla wax na ko rasulullahi ne ko la ubbi ubbi topp ma dara nag topp ma dara amoo benn bàkkaar yi weesu bal naa la ko yi fi nekk baal naa la ko yi bëgg ñëw baal naa la baal naa naa la dimbali naa la dimbali salaamaaleykum allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz ah. laa bëggoon wax lay waxtaan nañu ma yokkal baafal bi tuuti rek. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar bu baax a baax. jërëjëf tur bi naka la. man soxna Daba Jabaay laa tudd. waa kay Jabaay fooy wootee nii. ñun benn tali laay ootee. waa kay Jabaay Jabaay bisimilah. yal na nga gudd fan aan amin ñu bokk amin jabaay yal na nga gudd fan aan ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin amin maa ngi oote njun benn tali ndeysaan jërëjëf jabaay xaw ma fu may tàmbalee ndeysaan ndax Seydina Muhammad dama koo bëgg bëgg bëgg bëgg sallallahu alayhi wa sallam ba wóor rasulullah xamu fu may tàmbalee yal na la yàlla may gudd fan jërëjëf jërëjëf jabaay dama am sama tuut tànk boo xam ne bu ndaw mhm. dama koy wax ne ko kay kay tuuti Mhm. allo allo waaw. dama am sama tur tànk boo xam ne ndey ku mbëggee lañ koy wax. ndey ku mbëggee waaw. daf laa bëgg bëgg bëgg mais dafa feebar. yal na ko yàlla saafara saafara wér. dafa am dafa am cancer. ndeysaan ndeysaan yal na ko yàlla teggi. dañuy dindi ñaari bëtam waaye war dama koy wax toujours su waxee ne ko ana seen oustaz an loolu laa koy tooñ ndeysaan ndeysaan ko yal yàlla yal na ko yàlla saafara ci daraje Sidina Muhammad amin amin amin yal na ko yàlla saafara saafara ak wér amin amin incha taala nuyul ma ma ko baax jabaay kontaan naa dama bëgg nga sóoraale ko bu baax di ko ñaanal incha taala jërëjëf jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax a baax. ba nga xam ne war na rasulaay su ma ci wax Kumba nanga def. allo. def Ndeye Kumba. allo Ndeye Kumba allo. waaw. waaw def sama xarit bi maa ngi lay ñaanal dégg nga yal na yàlla saafara la bu baax a baax. kontaan naa kontaan naa dégg nga. jërëjëf. maa ngi lay ñaanal bu baax naa la ñaanal bu baax incha allahu taala. na yàlla saafara la saafara ak wér yàlla teggi ko ci daraja Sidina Muhammad. Ah, waa kay jabaay jërëjëf. lu bokk amiin allahumma amiin jërëjëf Seydina kontaan nañu jërëjëf mi ngi noonu soppay Seydina Mohamed yaa ngoog ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral sama yaay Abi Ndiaye ma nga Banjul maa ngi koy nuyu nuyu ko nuyu Chérif Tambidou mu baax moomule Chérif Tambidou mu gore moomule maa ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla yokk ko dëgëral ma nga Tambidou ba Tambidou maa ngi koy nuyu monsieur le ministre euh, de la justice bu Banjul sama xarit boobule sama sama doomu ndey yooyu soxna Mariam Tambidou Karim Tambidou ma jatu Tambidou ñoo ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla gën leen a barkeel ci daraje sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay booy namu nañ la lool xam naa ren incha allah taala bu ñu demee rek nuyu la sa xarit ba sa soppe ba sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adja Fatou Ka sama yaay boy jooju ma nga Maroc maa koy nuyu di ko ziar Fatou Waar El Hadj Mbuub ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar Adja Ayda Ka yaay taalibe yi ñaanal soppay Sidina Muhammad yëpp suñu baay Alxaji Saalih Aan ma nga Cees ñu ngi koy nuyu suñu baay Alxaji Maxtaar Cissé suñu baay Daawur Ndaw ñoom ñëpp suñu way jur fa nekk ñal na yàlla yokk leen dëgëral salaamaaleykum lay Maxtaar amul ko ne ci ligne bi ñaanal leen ñoom ñëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbokk mi noonu am nañu mbégte ñaanal ñi tawat nekk ci hôpitaux yi yal na yàlla saafara leen ñi tawat nekk ci kër yi ñi koy sooxaale yal na yàlla saafara leen ñi jiitu yal na yàlla yokk leen yërëm ñi nekk ci prison yi yal na yàlla gaaw génne leen ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan borom bi subhanahu wa taala ñuy dem ba mu yàgg réewum Sénégal dañuy wax ni sax kaso yi nañu ko tëj ndax amatul ko ñu fa dugal yal na yàlla def loolu yal yàlla soppi jikko yi yàlla aaral nu boppam yàlla sàmmal nu boppam yàlla musal ñu nag ci musiba ak balaa kasara gàttu fan déegu ñaaw déew mbetteel gàtt wër sa gàcce yàlla nañu ci borom bi subhanahu wa taala musal ci darajey sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ahmed Diallo Marise Couture nu ngi koy nuyu nu ngi koy ñaanal euh, yal na yàlla yokk ko dëgëral moom itam ci darajey sidina Muhammad Ahmed Diallo ngeen woo ko 77 414 51 51 414 51 51 sama xarit boobule maa ngi koy ñaanal yal na yàlla ko barkeel ci daraja yonent bi alayhi salaatu ngi noonu amat amati mbégte bu baax a baax ci soppay Seydina Mouhamed yi safo télévision Futurs Médias asalaamaaleykum. Euh, oustaz Papa. waaw la béy kooku. Euh, Soxna Sukeyna. Soxna Sukeyna. Sukeyna Seydina Mouhamed. ah Adja Sukeyna Mbuub mu Seydina Mouhamed. waaw. am na mbégte de am naa mbégte lool sax. Ah, dama ñëw congé de. ah macha allah macha allah. yow yaay yow yaay yow yaay soppe rasulullahi. waaw Tupaan de Tupaan moomu ngay wax naan lettre am baak Seydina Muhammad de. waaw. xanaa dafa bokk ci ñi jëkkay gëm te gisuñu xam nga danga ni woon am na ñett. ñi gëm Seydina Mouhamed te gisuñu ko ak ñi dund moom ak ñi nga xam ne mooy ñun yi mooy ñun. Euh, ñoom ñun ñi ko gëm. waaw ñu ko ñu fekk na jaar na bu yàgg. wallahi wallahi wallahi waaye gis naa xaal bi nga nekkee bi ngay wax ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. Pape An ñun Seydina Mouhamed xam nga liñ ci waaye bu ñu sañoon nag gën a jëfe jikkoom. waaw surtout surtout. jikko ji daal moom bu ñu. wallaahi wallaahi wallaahi ban ñuy def rek ba ba ba saxoo jikko Seydina Muhammad. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. jël jël jikko yu baax yu rafet yi maa ngi sama rakk ju ak waa moom it Seydina Muhammad lay dund. sallallahu alayhi wa sallam. kenn du moom. Ah, yàlla nañu yàlla saxal ci jikko Seydina Muhammad. waaye yow nag sa cofeel ci moom xam nga bañ ko xamee dafa yàgg yow yow rasulaay dong la ñor. Uh-huh. Ah, ajaratu su kay maa ngi fàttaliku bi nga bi nga jógee makkatal mukaram demoon ziyaar ji sa xarit ba. waaw. sa aj sa aj googu yàlla ah, keroog ku la ku la li jàkk yëg nii demoon seeti woon nga sa xarit bi nag. maa ngi ñaanal ñi fa demagul yàlla ñu dem. allahumma amin waaw eh, kontaan nañu lool nag Adja eh, Soukeyna nga bëgg sa waajur sax gën nañoo dolli suñu cofeel ci yow ndeysaan ni ngay waxee Adja Fatmata Ka ndeysaan ak eh, Alaaji Saliou Anne li ngay wax jërëjëf Anne jërëjëf jërëjëf kontaan naa jërëjëf Mbuub jërëjëf Mbuub <laughs> jërëjëf Anne kontaan nañu Adja boobu lay ñaanal ko yal na yàlla yokk ko dëgëral am na lu mbégte bu baax a baax a baax a baax Eh, ñaan borom bi subhanahu wa taala sunu waa ji daal eh, sunu cofeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli mbégte mi ñoom ci moom di ko bëgg fu nu toll te lu musa ba yàllaa ko wax wax naa la ko barki dem keroog bi mu ne saxaaba yi ndax su ma leen waxoon ni bisa ngi ñëw ngeen moom ruum ndax di ngeen ma gëm saxaaba yi xoolante saxaaba yi xoolante te ba bu ruuma yilif àddina salaamaaleykum allo ah kooku dem na waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. waaw Oustaz. waaw soxna si nu ngi lay nuyu. ah maa ngi lay fay. bisimilah tur bi naka la. soxna Khady si la. Khady si. soxna Khady si la Touba Afrem. waa kay si la si la si la. nu ngi lay nuyu baax soxna ah, Khady. ah Oustaz maa ngi kontaan ci yow. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lu baax waxtaan wi. waaw jërëjëf wàññil télé rek waaw jërëjëf jërëjëf Sylla. ah ñoo ngi lay ñaanal bu baax kontaan lool. alhamdulilah dëgg yàlla li ngay wax am na solo bu baax a baax. alhamdulilah Sylla alhamdulilah. waaw damay yàkkamti rek ma jot. ba ma jàpp jàkkaarloo yow ndax yow moom ku la déglu rek. Mm-hmm. wax dëgg yàlla lu baree baree baree bari. Mm-hmm. bu ko jàppoon tam dina ko bàyyi. alhamdulilah dëgg yàlla alhamdulilah alhamdulilah. li ngay wax ku jàkkaarloo yow rek xam ni mi ci yow. alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf waaw waaw. Mhm. kontaan naa ci yow sant naa la. jërëjëf maa ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la fi. amin nu bokk amin si la amin. parce que Serigne suba teel bi sax booy teel a yeewu jàpp jàppal di la ndax rek bëgg la bëgg rek ci sama xol. ndeysaan jërëjëf jërëjëf si la. waaw jërëjëf. jërëjëf aan kontaan naa yàlla bokk amin naa Mouhamed jërëjëf waxtaan dugg na sama xol bu baax a baax a baax alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf. jërëjëf si la jërëjëf soxna Xadi bég nañu yow itam yal na yàlla fay la yàlla gën a barke lépp maa ngi nuyu soxna May Galas euh, mu sëriñ Fàllu ma nga Tuuba moom itam ñoo yal ko yàlla yokk dëgëral ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi yonent bi waxal loolu saxaaba yaa ngi toog dañ la naan compter ni lislaam bi toll nabi ni leen ndax su ma leen waxoon ni bés ngi ñëw ngeen moom ruum ndax da ngeen ma gëm saaba yi xoolante parce que boobu jamono ruuma yi fi àddina ak perse saaba yi xoolante mu mel ni rek réew mi ëpp doole ci àddina bi ma ne waa Sénégal ndax waa yéen waa Sénégal su ma leen waxoon ni bés ngi ñëw yéen Sénégal ngeen moom Amérique ndax da ngeen ma gëm boobu ruum. moo yilif àddina saxaaba yaa ngi dëkkee ci ay sàkket ñee ña nga dëkk ci ay gratte-ciel ay immeuble ak waaw ay tabax yu mag moom àddina bi yilif ko nabi wax leen ni yéen lislaam bi yéen laa wax yéen jullit ñi ndax su ma leen waxoon ni bés a ngi ñëw yéen jullit ñi yéen ngeen moom ruum ndax da ngeen ma gëm oh sallallahu alayhi wa sallam ne di ngeen ko moom di ngeen ko moom 632 Moustapha dem salaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum. bisimilah. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maaleykum salaam. bisimilah ba baal wàññi télé bi tuuti rek. maaleykum waaw kooku. allo Oustaz. waaw bisimilah maa ngi dégg kooka la. man la Amadou. Amadou nan. Ama man la Amadou. Amadou. Amadou Hott. wat waa kay wat fooy wootee nii. man la Amadou Hott Amadou Hott. bi wàññi tele bi. allo allo allo sëñ Amadou. Amadou xam naa dafay déglu ci télévision bi loolu lay waral doo dégg. allo waaw Amadou wàññi nga télé bi ah. waaw animateur bi waaw. waaw bisimilah. waaw fooy wootee nii. allo maa ngi lay dégg ma ni fooy wootee nii. waaw naa def. alhamdulilah. asalaam. ñu ngi sant bu baax tabarakallah. waaw kontaan ci waxtaan bi rek. jërëjëf jërëjëf. vraiment sama xol set na ci lool sax. jërëjëf jërëjëf. te yàgg naa a bëgg bu dugg ko ndeysaan jërëjëf jërëjëf vraiment sa waxtaan bi na lool ah alhamdulilah mhm. allo maa ngi lay dégg waaw maa ngi dégg mi ngi noonu Amadou xam naa dafay déglu ci télévision bi ñaan borom bi subhanahu wa taala na yàlla dool lu ñu bëggaloo boppam na bi wax leen loolu ndax su ma leen waxoon ni bés a ngi ñëw ngeen moom ruum ndax di ngeen ma gëm saa xoolante ñoom perse ñu dama bëgg ñool màkk dem l'islam bi gën a yokk Abubakar dem salaamaaleykum rasuluna ahmadu rasuluna ahmadu lam yu daaha waaye ay Abdoulaye waxal jogamaay mu yokkal ma baaful bu am yokkal bi yokkal ma baaful bi am yokkal ma baaful bi waay aha jafa kooku Cheikh ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi tur bi naka la alaaji saw jàngkatu xasaayit waa alxaaji saw ñii lay siyaare Pape waaye alaaji am nañu mbégte waay ñu ngi lay siyaare bu baax baax dañoo toog léegi rek di seetaan si rek. waaye wallaay ndeysaan ndeysaan. më mënatuma koo mun li wax ci yonent bi. may xaaral ma xaaral ma dugg siyaare sama seen émission la siira seen émission la yéen soppay Sidina yi rawatina yéen waa kër yi. ñu waxtaanee ci man moom yow yow xam nga man xam naa. Sow yow sama xarit nga sama xarit nga da baax yow nit ku tedd nga ndeysaan Alxaaji Sow ma nga Pikine sama xarit boobule sunu soppee boobule maa ngi nuyu Omar Sène sama tailleur boobule moom itam ma nga HLM Omar Sène maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar tabarakallahu moom itam yal na yàlla yokk barkeel ci daraje Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adja Ndey Ba ma nga Kaolack nuy boroom këram Njoogu Ngiraan yaa eh, ami Ngiraan ñoom ñëpp nu ngi leen di ñaanal suñu maam Adja Abi Ba yàlla yàlla yokk leen dëgëral ci daraje Seydina Mohamed Adja Fatou Ba ma nga cité gàddaay suñu Baye Mbay Njaay ma nga cité gàddaay moom itam nuyu ko ziar ko baax a baax salaamaaleykum ono iɗimi haaldude salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi am ñu ngi ziar bu baax. ah ñu ngi lay dellu ziar soxna si tur bi naka la. Ah, tur bi Oulimata la. Oulimata nan. Oulimata Sall. Saar. Sall Sall. ah. Sall. Saane waa kay Saane fay wootee nii. maa ngi wootee Golf Sud. Golf Sud bisimilah Oulimata. waaw ah, may ma tuuti rek ma jox la sama yaay ma bëggoon wax ak yow. yaay waaw kay waaw ah, waaw. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam yaay noo def. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. an toroɗo a ah, bi seydi an ndeysaan mana so yahay wat watla santa aysa karjat wat a yaay wat wawi ah, wat wat wat wat so yahay philadelphie yaay ñoo dañoon amérique wawa jef philadelphie naga def naga def seydi yaay no def naka coono voyage wi mba sonno wallahi kontaan nañu ani ani ani ah, naka waa amérique yaa ngi leen dégg yal na la yàlla yokk ko ba nga yëg ko. amiin wat amiin wat amiin. xam-xam bi yal na ko yàlla yokk. amiin allahumma amiin wat amiin wat. li ngay wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. war na yàlla kontaan nañu. ndeysaan jërëjëf wat jërëjëf. kontaan nañu torop. amiin allahumma alhamdulilah. yonante bi mooy mooy lépp. kenn du moom kenn du moom yaay. kenn du moom mooy hakim mooy rahim mooy karim. ndeysaan ndeysaan. al yonante bi mooy lépp. ndeysaan jërëjëf wat. sama benn sët nag mi fi xale la waaye bi nga commencé ba tey mi ngi jooy rek. ndeysaan ndeysaan <laughs> yal na yàlla barkeel ko barke sëñ naa ba tey noppi waaye mi ngi e jooy ndeysaan ndeysaan ndeysaan kontaan wallaay wat wallaay yal nañu yàlla yal nañu ko yàlla def. amiin allahumma amiin amiin wat amiin ñu bëgg ko mu bëggal ñu boppam. amiin allahumma amiin te daraja yonante bi. sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf kontaan naa. yaay kontaan naa jërëjëf. bu ñu fàttali naa ñaan ak yow. incha allahu taala dañu leen fàttali. li nga ma jox li nga ma jox li nga ma joxoon nag jot naa kooku. waaw alhamdulilah. woo naa la nag ba tey jotuma la. dëgg la dëgg la dëgg la waaye dinaa la woowaat bu soobee yàlla. waa kay wat jërëjëf. araxaal day ma ko araxaala. jërëjëf kontaan naa. waa kay am am ma jox la ki doon jooy am. ndeysaan ndeysaan <laughs> waaw kontaan waaye daf laa bugg a gis incha allah dina ma gis bu soobee yàlla <laughs> yaay dina ma gis dina ma gis nee na xam na nu mu la yaay xam na nu waaw waaw dama laa dama gis dig ma gis kay incha di ma gis di ma gis dégg nga. waaw ma ne di ma gis incha allah xam nga war naa seet si sama yaay yaay bu ma seet see yaay rek dinaa la gis incha allah dégg nga. yàlla na yàlla barkeel leen yéen ñëpp. barkeel waaw bëgg naa nga ñaanal. ah incha allah du ma la fàtte naa la ñaanal bu baax. yal na yàlla barkeel leen yéen ñëpp barke Seydina Muhammad jërëjëf nga ñaanal ko bu baax a baax incha allah incha allah yaay yaay kontaan naa yaay kontaan naa kontaan naa la yàlla dëgëral amin allahuma yokkal yokk yokk mbooloom jullit ak fi nekk yëpp amin allahuma amin seen seen jotaay boobu yal na leen yàlla defal jàmm defal la sutura amin amin amin amin amin daraja ya rasulullah amin allahuma amin jërëjëf kontaan nañ jërë ngeen jëf waa kay jërëjëf waat jërëjëf madame Ba soxna Umu Kebe sama xarit boobule soppay Sidina Mohamed boobule soxna Umu Kebe maa ngi lay nuyu maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax soxna Umul Xayri da baax mu ngi koy nuyu moom itam ndokkeel ko ziar ko nuyu soxna Yaasin Ndooy soppay Sidina Mohamed yooyu le mu Cheikh El Hadji Abdul Aziz Si da baax ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci dajal Sidina Mohamed sama dëjaay euh, a Jóob ma nga tawa nuyu waa tawa yëpp nuyu sama ndiyaay ju baax joojule euh, a Diop maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziar Diop maa nga lay ndokkeel yal na yàlla yokk leen dëgëral salaamaaleykum. waaleykum la béykat. soppe Seydina Mohamed moo lay kan la. Euh, <coughs> tur bi nag koy jégalu di ko leb. ah da ngay leb waaw a yow. jërëjëf kontaan yow waxtaan bu am solo bi rek. jërëjëf alhamdulilah. Euh, ñu ngi lay ñaan jàmm baax di sàkku nga ñaan jàmm baax yow tamit. incha allah incha allah yow euh, yàlla barkeel xam ne moom yow desaan bëgg Seydina Mohamed moom day waxtaane Seydina Mohamed ko ñaal jàmm am jàmm alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaw ñoo ngi sàkku ci yow ngi a a mhm, mhm. a a a ba amuñu sax xamuñu sax lu ñu war a mën a wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah kontaan jàppale daal foo toll ñu ngi kontaan ci ñuy incha allah incha allah incha allah baax na jërëjëf kontaan yal na yàlla barkeel barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn amul seen fay bu baax Chérif Alhasan Haydara ma nga ma ca euh, Cincinnati Ohio euh, moom Chérif Alhasan Haydara xam nga bisam bu mag boobu le 24 décembre lay doon ca Cincinnati loolu nag maa ngi ciy invité soppay Seydina Mouhamed yi nekk Amérique yëpp ngeen fekk nu Cincinnati daañ ca teew insha allahu taala nuy soxna am soxna Gugu Haydara Haydara Sharif nu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa yow na nga sant aan nga sant wala dem nga sant <laughs> ah, aan moo gën dem ah? dafay bëgg eh, bëgg ñebbe ah, ak ceeb <laughs> man maa lay woo Adja Yacine Dem Adja Yacine Dem waa kay dem nu nga lay nuyu jërëjëf dem dem alhamdulilah an lii ngay wax neex na. jërëjëf dem. Euh, lii ngay wax. bégal nga jullit yëpp. alhamdulilah alhamdulilah. lii teg lii ci tele bi moo gën teg ay fecc walla ay woy walla ay xaste. Mhm. lii da delloo nit ñi ci yàlla. jërëjëf. ñu dellu ci seen borom. alhamdulilah lii ngay def nag yal na la yàlla ntebe Cheikh Naama Tidiane Faye. amiin nu bokk amiin dem. yaa xam loo bëgg yal na la ko yàlla defal. amiin dem amiin. man nag maa ngi sàkku ñaan. wér mm. te yàlla dellowaat ma ci Seydina. incha allah yal na yàlla delloo la ci jàmm. waaw. sa aj ga yàlla ba mu nekk sa mujj aj ci darajay Seydina Muhammad. amiin nga dellu ay yoon yu bare bare bare bare. amiin allah incha allah dem amiin amiin amiin. jërëjëf loolu dong daal laa bëgg daal aan yal na yàlla mottali ko yaram mi dafa xaw a jagadi. yal na yàlla saafara la saafara ak wér. ak yonent bi wér. ba yàlla delloowaat ma ci allah incha allah dem incha allah kontaan nañu am nañu mbégte jërëjëf jërëjëf dem jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax mi ngi noonu Serigne Issa Touré maa ngi koy nuyu mu baax moomule boo tawatee ñaanlu daf naan la yàlla yàlla saafara la waaye saafara ku wér moom Serigne Issa Touré maa ngi koy nuyu nuyu waa sopp na bi yëpp euh, imam Adama Ba ñu koy nuyu moom itam ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraje Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi noonu incha allahu taala maa ngi taxawandi waaye xam ngeen le 16 le 16 décembre euh, soxna Yuma Aïcha waa Philadelphie ca Amérique ñoom itam seen bis bu mag boobule 16 décembre lay doon salaamaaleykum. Oustaz euh, Anne. la béykat kooku. Euh, man la Mamadou Medor. Mamadou Medor. waaw maa ngi lay nuyu lu bëri a bëri. Alaaji Mamadou Medor nu ngi lay nuyu. waaw di la ziar ndax l'émission rek am mbégte ci yow rek di la déglu. ndeysaan saa su ne daal. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. ñun groupe Futurs Médias yëpp ñu nga bokk télévision yi. macha allah jërëjëf. di rafetlu kàddu gi. di encouragé baax a baax. alhamdulilah di di di ziar ke ñun mbokk a dem Màkka. waaw waaw. te wax ne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara boo ko defal mu fay la fukk. wallaahi. dañu a góorgóorlu rafetal ak gi waajal ba indi benn coow benn mm-hmm, benn xuloo mm-hmm. benn werante benn naqar xam wallaahi kuy wut yàlla moom du yomb déedéet déedéet ndax ndax yàllaa ko sàkkee noonu mm-hmm. am naa mbégte lool lool lool di la di bu baax a baax di rafetlu sa sa waxtaan daal neex na ma lool lool lool di jaay mbokk jullit yëpp di nuyu groupe Futurs Médias rawatina borom kër gi Youssou Ndour. Hadj ku xam ne ku baax la daal. ku baax ku baax ku baax am solo la ci askan daal. wallaahi wallaahi di jaaree yi mbokk jullit yëpp. wallaahi am naa mbégte lool ci ajuma bi jërëjëf. am nañu mbégte. yal yàlla fay la. mi ngi noonu soppay Sidina Muhammad yaa ngoog mi ngi noonu ñi bëgg Sidina Muhammad a ngoog mi ngi noonu suñu cofeel ci moom yàlla ko yàlla gën a dolli ñu jël ay jikkoom laabalaat suñu xol dafa ruwaat yi nañu wëlbatikuwaat te aar suñuy njaboot yar suñuy njaboot suñuy doom fi ñuy fréquenté nañu ko xam si naa dafa waxoon ni wa jaal jalisaka sayyidan xibrun labibun aqilun mutaaddibu nee na na nga def sa fi ngay fréquenté sa fréquentation sa toog sa toogaanukaay fa nga koy def koy fréquenté na nekk xibrun fóore labibun bu ñaw aqilun ku am xel mutaaddibu ku aji am ji teggin nee na koy fréquenté na nekk xibrun fóore waaw na nekk fóore na nekk xibrun fóore labibun bu ñaw koy fréquenté na nekk borom xam-xam ndax nga jël ca xam-xamam ba na nekk borom teggin na nekk di ko am xel boo bëggee jàdd mu woo wala yedd la xamalaat dina seeni doom nag dee leen vérifier fi ñuy fréquenté xale yaa ngi naan sàngara bàyyi ngeen loolu seen doom yaa ngi tux yàmbaa ñu ngi ci mbedd mii tux yàmbaa te lu ngeen ko xam xamu ko yëgu leen ci dara amatu leen jotu yar seeni doom vérifier leen xale yi ñu ngi tux yàmbaa xale yaa ngi naan sàngara sàngara seerul am na bouteille cent am na bouteille deux cent xale yaa ngi ciy naan yéeg leen loolu vérifier leen seen doom te yar seeni doom xam ne ñoo war a taxaw réew mi ëllëg salaamaaleykum kon lay maxtaar waxtu bi jërëjëf ma daa ma tàggu ah. ah ah ma jël ko salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah. soxna si nu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. bismillah tur bi naka la. Euh, soxna Safiyatu. ah. soxna Safiyatu. Sof soxna Safiyatu ñu ngi lay nuyu. waaw xëy ñu ngi leen di fay di leen ziyaara. jërëjëf sant bi naka la. Diop la. Diop waa kay Diop Diop bisimilah. ak jërëjëf jërëjëf Diop. Ah, di sant rek wax dëgg yàlla. alhamdulilah. sam bi de fii la rawee nag. alhamdulilah Diop fooy wootee nii. waaw ci jamono ji ne fii ci Dakar laay wootee. waa kay Diop Diop. nga xam ne xol yeeg xel yëpp mu ngi xas ci jëm ci suñu sang boobu. Mm-hmm, sallallahu alayhi jërëjëf. macha allah ngeen won ñu bari bi. wallaahi wallaahi. ñu soxla. Mhm. ñii mooy dundal suñuy xol. ndeysaan. nga xamante ni bii ku nekk. ndeysaan. boo mënee boo mënee yëpp boo na ko jàkk. te yàlla wallaahi wallaahi. na dem yàlla na yàlla yóbbu leen ci fa jaamu yàlla yal na yàlla nangu. amiin allahumma amiin amiin Diop amiin. ñu ko ci suñu Sénégal ak bépp dëkk bi dëkk jullit. Mhm. rawatina sax ci àddina bi. wallaahi wallaahi Diop. imam Pape Hann yàlla na ñu la yàlla sàmmal. amiin nu bokk amiin Diop amiin. wallaahi yal na yàlla sàmm. amiin amiin Diop amiin. macha allah jindi ndaw ñi déglu sax. ñu mhm. ko déggee nañu ci sopp. jërëjëf. xam nga ne fii alhamdulilah. donc dañuy sant yàlla di yàlla ñu ngi koy defal sax nag ci clé. ñu koy defal ba ñu ngi tamit waxtaan yi ñu koy am ci suñu bi baax na waaye bu ñu sañoon ñu amee yeneen yi nga xamante ni tubaab fakala lii ñun la ñu soxla ci suñu clé bi rek def li nga ma koy wan ak. ndeysaan yàlla bu ñu yàlla bu ñu bépp. jërëjëf barrière bi dong lañu soxla. wallaahi. yàlla mi ngi nii de mi ngi nii tëdd mi ngi nii moo nekk nii. Oh, yàlla na yàlla fay. kontaan nañu Adja Sofi. kenn amul sa fay yow itam yàlla na yàlla barkeel la Adja Sofi jërëjëf. jërëjëf jërëjëf noonu soppi si ginnaaw Mouhamed Dia ngoog mi ngi noonu ñi bëgg yuñ ci yàlla Mouhamed ngoog ñi fa demagul yàlla dem fii nag boo fi agsee rek xam ni yàlla de ko ci li yàlla am ki xam ne mu nekkuloon ak moom boo dee xew bay xew li si Mouhamadou Mansour daan wax kooku bu la yàlla woomatee ba nga àgg fa neel yàlla deseelatuma dara waaye am na ñu demul ñoo xam ni du ñu tàqale koog rasulullah problème bi mooy na nga ko yëg na ko yëg rek te bëgg ko soo ko yëgee bëgg ko doo tàqale koog moom boo fa demagul sax moom mi ngi ak yow du tàqale koog yow. waaw waaw ndax ñi bëgg na Seydina Muhammad boo boo du tàqali koog yow Alaaji Mansuur nee na mahabbatuhu yumnun nee na bëgg Seydina Muhammad barke la wa amnun nee na bëgg Seydina Muhammad sécurité la kóolute la wa rahmatun mu ni bëgg na Seydina Muhammad yërmande la bu fekkee amoo yërmande boo bëggee yërëntu bi da koy am waaye bi gën a neex mooy bu fekkee amoo leer nga bëgg leer alaaji Mansuur ne bëgg rasulullah watak su dañuy wodd dañuy wodd wodd man képp koo xam ni kaana nekk na aariya di aji rafle minal anwaari ci ay leer bu fekkee da ngaa rafle leer amoo leer nga bëgg leer alaaji Mansuur ne bëggal Seydina Muhammad yàlla ci boppam moo lay wodd ay mbalaani leer kon yàlla nañu fi yàlla dolli bëgguloo mbokk yi ñi dem yal yàlla indiwaat leen ci jàmm ñi dem bool yal yàlla yóbbu leen ci jàmm ñi aj ñëpp yàlla yàlla defal la xajjan mabruur wa saayan mazkuur wa zanban maxfuur apulaay am nañu mbégte yàlla na yàlla yokku la dëgëral mu ne woon ci rési bi jóg a maay alaaji Muntaga lii Babacar Bey ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen a barkeel réewum Sénégal yàlla fi yàlla dolli barke dolli fi jàmm waaye itam dolli fi teraanga ak sama yaay Adja Aram Mbeng maa ngi koy nuyu ma nga HLM soppe Sidina Mahamed boobule maam Abi Ndiaye mu sëriñ Babacar Si ma nga HLM maam Abi Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara soppe Sidina Mahamed boobule maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko nuyu màgget aan sama rakk joojule Maxtaar aan ñoom ñëpp yal yàlla barkeel leen Mansour aan sama mag jooju ma nga Muritani Modou Xaban aan ma nga Mbooro euh, ñaanal sama mag ja Mor aan yal yàlla yokk yërëm ajaa Aw Cissé Adja Ndey Ngom Adja euh, Ndey Sofi Diop sama yaay yooyu le na yàlla barkeel leen ci daraje Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla defal ñu jàmm yàlla defal leen jàmm réew mi am jàmm ngeen am jàmm ñu am jàmm incha allahu taala ba ñu aj ak jàmm ñëwaat ci jàmm ñu jàkkaarloo waat ak yéen waaye bu leen fàtte ni dara du leen ump nag ca madinatul munawwara ak makkatal daa ñu def ay émission ak i plateau foofu en direct ci amaama rasul ci kanamu Seydina Mohamed yónnee leen ko ngeen seetaan ko ci télévision Futurs Médias wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu